politique syndicat moom euh, seen diggante dafa xat mën naa pour nga lijjanti ko sax taxale lu jëfalee doon àdduna moo tëddee noonu waaye dañuy fexe ci suñu liggéey ñun en tant qu'enseignant en tant que syndicaliste ñu def ba lii ne mooy élèves droit ñu bañ ko laal ñu préserver ko nous sommes ba ndax élèves yi suñuy dom lañu di jangal moy leen di forger pour ëllëg ñu doon li ñu doon bu amé lu ci nous rek mën avenir bu ko défé ah lu ñu nek syndicaliste ah militant politique du téré ñu xamné ne ay ndaw lañu dañu le ah, ah, réew mi askan leen te dañ sàmm leen ci lépp loo xam ne dina yàq seenam njàng lépp loo xam ne dina am luy mejj ci seen formation ndax bu fekkee ne quantum horaire bi li ñu war jàng ci ay waxtu dafa am lu ci wàññeeku foog mu feeñ ci seen qualité de formation bu fekkee ne ñoom li ñu war a doon dafa am loo xam ne daf ci wàññeeku foog mu am lu mu wàññi ci ñoom kon bu ñu bëggee tabax nit niteel ko ba mu mat sëkk am na loo xam ne waruñu ko nangul suñu bopp dañuy considérer ñun d'abord ñun ñooy sëriñ yi ndongo yi ñun ñoo leen war a aar ñoo leen war a sàmm sàmm fi ñu ne fi ñuy jànge aar leen ba seen nekkin mën a njoŋ ba ñoom njàng bi xam ne ah xam-xam bi xam ne dañ ko war a dugal ci ñoom ah manoore ñu ma ñu mën ko matal bu mu mët sëkk. maintenant ñu ngi rafetlu nag li xam ne moo ñu ko si def moom la def parce que dafay permettre nit ñi di waxtaan dafay permettre nit ñi weccante xalaat.

ñu ànd nañu sàmm xale yi sàmm seenam njàng sàmm seen xam-xam